tàllal leen loxo yi gën di mindeef jaara way gën di mindeef jaara jiñ jiñ leen inna alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'uuzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihi la fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu ala man qaala bu'ithtu li utammima makarim al axlaq wa qaala aydan laa yuminu ahadukum xatta akoona ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi wa naasi ajmain ani sayduna muhammad rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mbokk jullit yi dikkaat nañu fii ak yéen di def ak yéen seen émission bu rëy boobu muy ma sopp rasulillahi alayhi salaatu wa salaam ci seen site bu rëy boobu en ligne muy fkr 92 point com tey nag fan yi yëpp sax laay wax ñoo ngi ci lax dëriw nga xamante ne dañuy àndandoo ñu ñëpp di nafarandoo sunu diine ñoo ngi ci page huit faslun ki aji fasal ji ay wax la mu ne isa taayanati najasatu xusila mahalluha fa in tabasat xusila sawbu kulluhu cheikh abdourahman laxdaru nee na isa taayanati ndem ràññee nga ndem gis nga najasatu sobe xusila mahalluha raxasal béréb ba soo amee yére nga am malaan sobe taq ci benn côté benn côté nga jàkkaarloog moom jarul ngay fóot yére bi yëpp raxasal fi am sobe bi rek doy na sëkk fa in tabasat bu fekkee lënt naa nag xamoo fan la ci xamoo ci kanam la xamoo ci ginnaaw la xamoo ci suuf la xamoo ci kaw la xamoo kanam la xamoo ginnaaw la xamoo fan la sobe si ne waaye sobe sàngi fi mu ne xuusi la su boobaa xuusi la bi fóot lay firi fóotal saw bu kulluhu yére bi yëpp xusle bu njëkk bi lu muy firi mooy raxas ñaareelu xusi ba fóot lay firi tabaarakallah isa taayanati ndem ràññee nga najaasatun sobe boo gisee sobe xusi la a raxasal béréb bi xam nga ne sobe baa ngi nii sobe baa ngi nii mu ngi nii nga jàkkaarloog moom sobe baa ngi nii raxasal béréb bi kese doy na sëkk léegi nag xamloo sobe bi fan la nekk ci yére bi fóotal yére bi yëpp mu ne waman shakka ku sikki sàkka ku am duut fii asaabati najaasati ci jotug sobe jotug sobe nadaa da nga koy wis am nga sikki sàkka am nga sikki sàkka gis nga ne bu baax baax baax sobe baa ngi waaye yaa ngi naan sobe la du sobe sobe la du sobe asaabati najaasatu ci jotug sobe sobe looy def nadaxa na nga ko wis wis ko sobe la ngay romb jékki-jékki benn tuyau tis la tuyau tis la boo am sobe fii asaabati najaasati ci jotuk sobe yaa ngi am sikki sàkk ndax sobe bi ñëw na fi yegsi na wala yegsiwul yegsi na wala yegsi na nadaa wis ko nu ko wis yaa ngi romb yaa ngi romb jékki-jékki sobe tis la ñëw ba ci sa yére yaa ngi naan yegg si na wala yegg siwul sobe bi yegg si na wala yegg wul fii asaabati najaasati ci jotuk sobe jëlal ndox rek nga wis wala ngay romb jékki-jékki am benn tuyau boobu buy rogalaat ndax dal na sama yére wala dalul sama yére dal na sama yére wala dalul sama yére nee wis ko wayn asaaba shay'un shakka fii najaasati yii gis nga demir ji fii najaasati yii wayn asaaba ndem jot nga shay'un aslëf shakka ci sikki sàkka fii najaasati yii xam nga bële dañ la waxoon yegsi na wala yegsiwul léegi nag gis nga nag léegi sobe bi gis nga ko yaa ngi naan sobe la ndax du sobe sobe la ndax du sobe lu tuuti la nag ko kii asmaa yu moo la koy firil najaasatun xalilun kuriha dafa ne la sobe su ndaw jéggale nañ ko mu ne falaa nadaa jarul ngay wis falaa nadaa jarul ngay wis yaa ngi romb walla jékki-jékki am na benn tuyau yow wadd na mais gis nga ko yaa ngi naan sobe la am du sobe sobe la am du sobe yaa ngi sikk sàkk sobe la am du sobe fële yaa ngi naan yegsi na wala yegsiwul te fii gis nga ko sobe la wala du sobe nee na na daa ndax sikk sàkk bi moo tuuti chey un dañuy wax ne sobe su ndaw dañ koy jéggale loolu rek la bëgg wax oman tazakkara ku fàttaliku najaasata sobe wa moom fii salaati mi ngi ci biir julli xataa na dog julli gi xaataa dogal julli gi wa man tazakkara ku fàttaliku najaasatu sobe yow nee nga allahu akbar kaaba di julli nga am sa benn rakk wala ñaar rakkaa yaa ngi ci biir julli gi nga jàkkaarloog benn taas moo dooni sobe la mu ne xataa dogal julli gi illaa an yaqaafa condition nga koy doge nag ndeem ragal nga xóoroo jàll waxti génn waxtu wa ci nga koy dog dem ragal nga génn waxtu waaye attention sàmmanteeg waxtu moo gën sàmm laab sàmmanteeg waxtu moo gën sàmmanteeg laab su fekkente ne yow julli gi boo ko arrêté mën nga fi dem jàppi mën nga dem dindi sa sobe soosu wala mën nga changer yére te waxtu wi du passé dagal julli gi waaye su fekkente ne waxtu yi dafay passé continuer nga julleeg moom sàmmanteeg waxtu moo gën sàmmanteeg laab ilaa an yaxaaf mu indi condition indi istisna ilaa an yaxaafa ndéem ragal nga xurujal waxtu génn waxtu wa déglu wa man salla ku julli bihaa bihaa ànd ak sobe naasiyen nga fàtteen wa tazakkar nga fàttaliku ko nga fàttaliku ko baada salaami gannaaw ba nga sëlmalee aada baamul julli gi fil waxti ci saasa saasa bismillah lu mu wax julli nga yaa ngi ci biir julli gi nga fàtte ne yére bi nga jullee yére bi nga jullee am na sobe am na sobe nga sëlmal jamono bi nga sëlmale jógal nga baamu ci saasi simmi yére bi baamu ci saasi su fekkente ne waxtu yu dem na nag ba nga sëlmalee waxtu yu dem na kooku jarul baamu sàmmanteeg waxtu moo gën sàmmante ak laab sàmmanteeg waxtu moo gën sàmmanteeg laab sàmmanteeg waxtu moo gën sàmmanteeg laab ñu jaaraat ci faslun ki aji fasale ji la ay wax isa te ayyanati ndem ràññee nga najaasatu sobe xusila na nga raxas maxalluhaa palaas ba sobe boo xamee fi mu ne raxas ko ci yére jarul ngay fóot yére bi yépp fa in tabasat ndem lënt na xamoo fi mu ne xusila sawbuhu sawbu kulluhu raxasal yére bi yëpp borom xam-xam yaa ngi laaj mbooloo bu rayee nit ñuy laaj kat moo rey kii te ku rey ñu rey la buñ ne kii kat moo ko rey xam nañ ki ko rey nañu rey ki ko rey léegi nag bu ñu laajee nag kan moo ko rey te mbooloo ne fi kenn nangul wax moo ko rek chéré neen nañ ngay ñëpp parce que ay complice lañu kenn nangul wax ko ko rey mooy diggante sobe suñu xam ak sobe suñu xamul xam na nit ki rey nit ak mbooloo mi nga xamante ne nanguñu avionné kenn moo ko rey kon dañuy rey ñëpp fa in tabasat bu lëntee xusila saw bu kulluhu kon nag dañuy raxas dañuy fóot yére ba yëpp waman shakka ku sikki sàkk fii asaabati najaasati ci jotug sobe nadaa nadaa na nga ko wis waaw ah, sobe si ndax yegg si na wala yegg siwul gis nga rek mu tis yegg si na wala yegg siwul wax nañu na nga ko wis wayn asaabati shay'un shakka fii najaasati yii am nga sikki sàkk ci sobe si sobe si sobe si ndax sobe la wala du sobe su boobaa fala nadaa su boobaa fala nadaa jarul nga koy wis ndax sobe su ndaw dañ koy jéggale wa man tazakkara ku fàttaliku najaasatu sobe wa te yow moom ko fàttaliku fii salaati yaa ngi ci biir julli xataa na dog julli gi ci saasee saasa in illa an yaxaafa ndéem ragal nga xóor ndéem ragal na xóoroo jal waxti génn waxtu jamono booy julli jamono booy julli nga ne sobe mi ngi sama biir yére am naa sobe gis naa ko ci biir julli gi dogal julli gi su fekkente ne su fekkente ne da nga nar a génn waxtu wi waaye bu fekkente ne waxtu wi dafay dem continuer sa julli gi ilaan yaxaafa ndéem ragal nga xurujal waxtu génn waxtu wa wa man salla ku julli bi haa ànd ak sobe nga fàtte wata zakkara nga fàttaliku ko baada salaami gannaaw ba nga sëlmalee aada na baamu fil waxti ci saa saa saa saa booy baamu dafay fekk nga nekk ci waxtu wi waaye bu waxtu yi jàllee jarul ngay baamu tabaarakallah yal yàlla boole defal dégg topp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen mbokk seen xarit xaadim seen man doon defal seen waxtaan ci lax Laxdariwu tabaarakallah nafarndoo sunu diine seen site bu mag boobu fkr 92 point seen émission bu rëy boobu maa sopp rasulillahi alayhi salaatu wa salaam asalaamualeykum wa gën ji min def daara ji